beneen point bu ñu bëgg waxtaanee mooy lu am solo mooy mbiri candidature bu président Macky Sall mu doon candidature boo xam ne démb Macky Sall dem na ci tubaab yi wax ci benn manque de respect bi mooy jéggi Sénégal dem bitim réew di ko fa waxee ci loo xam ne mbiri Sénégal la mu doon sunu njiitu réew mais man déggin wi ci nit ñi am lu bari man dégguma ko man dama jàpp ni ki doon wax démb du njiitu réew Sénégal moo doon wax moom président Macky Sall du njiitu réew Sénégal moo doon wax maanaam secretaire général parti bii di APR moo doon wax ndaxte boo xoolee fa mu doon waxee ay militants am la toogal mais aussi waxu nitu politique moo doon wax mais ab njiitu réew du waxee noonu wax na sax ba def loo xam ne tàmm na ko mooy di tëkkuwaateeg ne mu dugg ci. léegi nag dafa dëggal kàddu Ousmane Sonko moom président Macky Sall dem boo ko déggee mi wax. mooy dinañ fi toog <coughs> ba sunu nguur gi ak liggéey ñu ci def wéyal ko ba heure bu ñu neexee ndaxte après 2024 dañ fi war a continuer di ne loolu dinaa ci dikk ak mbiri Karim Wade ak yooyu mais fii il faut que nga comprendre ni secretaire général partie moo doon wax mais du président parce que Macky Sall li xew ci réew mi yëpp ba mu xew ak léegi taxul ci réew mi wax ci taxul ci réew mi wax ci dem ba bitim réew di ko fa waxee loolu nag tontu la ci ña ko doon yuuxu ca portigal man dama jàpp ni ñooñu la doon tontu pour wala leen ni am naa mbooloo te diaspora bi gëm nañ ma mais aussi di rassurer ay militants di dalal seen xel parce que te jamono yi nag on peut dire que moral bi baaxul ci côté président de la république moral bi baaxul ci côté président de la république parce li fi xew yëpp boo xoolee dialogue bi bi ñu koy ibbi ni mu fëggee dënnam da ngeen may ñaan ci njëkk. mais tey jii dafa mel ni moom moo ñuy ñaan ci njëkk ndaxte nee na volonté peuple Sénégal moom mu mën a falaat dégg nga mu ne kon lépp dellowaat na ko askan wi mu ne bu dee askan wi loolu lañ bëgg kon tey jii moo ñuy ñaan ci njekk ba mu toogee ci dialogue bi bëgg-bëggam la doon wax ba fëgg dënnam tey jii situation bi changé ne kon li fi jaar ci weeru juin première de le trois def na effet ci président Macky Sall moom il fallait que gaayam yi mu joxaat leen moral gëmloo leen ni maa ngi fi te pare naa pour taxaw. loolu na discours Macky Sall bi pour galvaniser ces troupes la doo déggee mi ngi naan la Benno Bokk Yaakaar mooy coalition boo xam ne depuis onze ans mi ngi fi tasul dara liwul te coalition bu day continuer di fi ne parce que bari na ci loo xam ne xew na ci diggante bi parce que boo xoolee Macky Sall depuis 2012 élection bu ñëw day mel ne montagne glace day gën di seey parti bi coalition bi yu bari dafa wàññeeku impopularité bi dafa am parce que Macky Sall dafa jàkkaarlu peuple am parce que da ngay xool képp ku Macky Sall di duma ci réew mi sax waa réew mi dajale xaalis jox la képp ku Macky Sall tëj waa réew mi jug na ko bu ko tëj bu ju mujj rek mooy wal fajri loolu mooy wane ni impopularité am bi mu dàqee capitaine Touré gi Marius Sagna ba ci Ousmane Sonko mi tey jii fitnaal gi mu ko fitnaal moo tax askan wi taxu Ousmane Sonko pour man nag yooyu mu dund yëpp ba xam ne jamono yi bayre bi wàññeeku na mais soppi gi ko sénégalais yi soppoon wàññeeku na il fallait que mu ñëw joxaat doole partem joxaat doole ay militant am gëm leen ni maa ngi fi même bu fi nekkul parce que yi day politique loolu tax man ba léegi démb gisuma la président de la république maa ngi doon gis benn secretaire général parti jiite ab coalition Benno doon leen gëmal ni gars yi amul yox yox yi amul dellu ginnaaw amul daw général bi mi ngi nii maa ngi nii taxaw beneen kàddu bi may dégg ci président Macky Sall mu wax ko mu ne dinañ continuer di fi ne continuer di fi ne boobu nag loolu moom du coobareem mais coobare askan wi lay doon mais boo déggee continuer di fi mun nga jàngat ni dafa jàpp ni libéraux yi mun na am moom moo dul candidat jàpp nañ moom mënu fi toog di fi ne parce que peese na boppam ba xam fu mu toll mais li Ablaye Wade waxoon ni libéraux yi dinañ fi dem cinquante ans dafa mel na ci logique boobu la ne. dafa mel ni ci logique boobu la ne parce que boo gisee logique gu Karim Wade man Khalifa Sall dama koy écarter je ne je ne vais pas parler de lui parce pour man geste moo ko yóbbaale sikkim la rek mais pour man lii bari na li ñuy liggéey Karim Wade la nga koy liggéeyal parce que c'est la famille libérale boo xoolee li ñu defal Idrissa Seck yóbbu ko conseil jekk-jekkal ko waat ko ci opposition bi jël jëli Karim Wade article vingt huit ak vingt neuf ñu fas yéene ko dindi léegi fexe ba réviser son procès alors que réviser procès benn day jël xaalis. day jël temps mais aussi gàcce la ci état wu Sénégal mais état wu Sénégal bu mënee gàcceel boppam ci kanamu Karim Wade ça veut dire que ñoom ñi ngi ci logique boo xam ne ñun ñii xamuñu ko mais logique bi mooy per fexe ba la famille libérale gën fee yàgg. ñoom pour man seen logique loolu la même bu dul sax Macky moo fi toogaat mais ki fi toogaat doon libéraux te jeu boobu ñi ngi ci jeu boobu ñi ngi fi loolu nag tey jii pour man moo indi kàddu dinañ fi toogaat après 2024 parce que moment bi mu ko waxee bi ñu xëyee ci suba lan gis ci journaux yi ñu ne Karim Wade dindi nañ ko lépp mais Karim Wade li ñu ko ràccalee sax ràccaluñ ko Khalifa mais Khalifa candidature yóbbaale ma la maanaam il faut que ñu yóbbaale ko géew parce que boo xoolee ay niti xalifa boo déggee PDS troisième mandat ñoom ñu ci wax ay troisième candidature PDS ñu ci wax mais xalifa ñoom seen principe mooy Macky warul am troisième mandat te tey jii féddaliwaat nañ ko. léegi nag ñii ñëpp tey jii duñ mbokki makki Sall waaye buñ doon ay mbokkam ni aadama Faye ndax mbokk ndey koy jur te nag Adama Faye ak Marème Faye ñoo bokk ndey baay te nag ndijaay moo di yaay comme Adama Faye ñi naan Macky la bëgg mais man pour man Marème Faye la bëgg ak njabootam parce que un président bu fi jugee topp ko day jafe mais tey jii njabootu Marème Faye te bëgg na ay jarbaatam ëllëg ñu leen di tàccu mais bëgg na ay jarbaatam ñu leen di kañ. bëgg na ay jarbaatam ñu leen di kañ loolu il fallait moom mu wax ko te du la première fois mu wax jëm ci lool parce que mag Macky dafa dem ci sëriñ si waxoon ni ñaar ca lay yem moo tax Adama Faye tuddaat sëriñ si na leen sëriñ sa mu demoon tudd fa ñaar bu fa demaatee naan ñett lan lañ koy wax loolay waxi Adama Faye mais sëriñ si muy waxal ci candidature bu président Macky sàll candidature boobu li mu ko mën a yàqal dafa bari te histoire nit a ciy dugal boppam nit a ci génne boppam te Macky Sall dafa am occasion dugg ci histoire mooy ñaari mandat laa waxoon am naa ko maay première président boo xam ne tey jii maay organiser élection te duma ci bokk loolu mën ko jural lu bari ci àddina mais tey jii bu demee ci élection ci risque lay demee ci risque lay demee parce que bu bu demee ñàkk élection yi ak li xew ci réew mi yëpp ak yi Juan Branco dugal ak yooyu mais problème mën na am kon Adama Faye bëgg na Macky mais Marème la bëgg ak njabootu Marème te Adama pour pourquoi kàddoom jara bàyyi xel ci Macky Sall ji nga bi ñuy dugg ci procès Ousmane Sonko Adama Faye ci la ñu woon procès bi du dem yeneen a ngi fàttali kàddu googu mu ne procès bi waruñu ci dugg affaire yu jigéen waruñu ko utiliser di écarter ay candidats nan bàyyi ñëpp bopp bu ma sañoon mbiri aji Sarr ñu teg ko ci suuf ñaan ko président Macky Sall solennellement Adama fay moo waxoon loolu. tey jii buñ ko déglu woon est-ce que cinquante morts yi Juan Branco naan day yóbbu Macky Sall ci cour pénal dina am kon Macky nay déglu Adama Faye tey jii la mu ko doon bañal ci mbiri Adji saar ba nu dugg ci guddi gi loolu la koy bañalaat ci candidature ndax candidature mun na jur leneen te jàmm rek lañ ci bëgg kon dama jàpp ni danoo toll ci moment boo xam ne ci sunu histoire réew mooy ku ne dafa war a jël responsabilité am wax dëgg taxul dee wax dëgg taxul dee. mais ki ne ku ne jël responsabilité am marqué li ñu dund ay cinquante morts yi ñu weesu ak li ñu dund euh, en 2011 bëgguñu ko dundaat kon lépp loo xam dañuy dugal ci guta képp ku war a wax na nga war a wax képp ku war a taxaw taxawal képp ku war na déet na wane déet loolu la ñuy xaar lii nag bu ñu ko defee pour man mooy contre Ousmane Sonko dinaa ci dikkaat ci Sonko ak impact ak conséquences yi muy am yépp ci moom mais lii dafa jekkoon pour ñu wax ci barricade bi ñu dindi ko mu dem tabaski ak njabootum ak doomam ñaani ndéwénal complot yi ñu bàyyi ko élection yi ñu war a bokk yëpp bokk Sonko dafa war a bokk parce que ay nit mu ñu leen jiiñ ay cent et trente-huit yoo xam ne Karim Wade da ko war a jox trésor Khalifa Sall ñu koy topp ci yoon ci mbiri xaalis waxuñu ñoo def de mais ñooñu tey jii ñu mën leen a lewal ci ab dialogue politique ni ko Mimi Touré waxee ne dialogue bi dañ ko defoon juste surtout dañ ko defoon kase pour. valider la candidature de Karim Wade dil entrepedes ak Macky Sall mais la muy waxoon neexut a weddi parce que li mu jur tey ji dafa dëggal kàddu mi Mimi Touré dafa dëggal kàddu yi Mimi Touré kon di gërëm ñëpp di leen sant euh, leen rek moo rafetul ay nit yu ñuy toppee alalu réew mi ñun leen na nekk candidat kii ñu koy toppee corruption de la jeunesse ak diffamation di Ousmane Sonko ñu ne warul bokk maanaam loolu bu ko xel nangoo sax ngoro da koy bañ.